kat ginnaaw timis la ma waxoon ma ne ko ma ne ko ma ne ko ah mba mbaa heure ba fixé wu na mu ne ma waaw ginnaaw timis ndax ko ma ñett lay doon nangam nangam ginnaaw timis la te te kat bi bi bi bi dong kat woon na ma nga xam ne kon ba tey kon maa ngi woon ci ginnaaw timis gi ba tey jii ci ci ci bëccëg nag kon mu woow ma ne may ñëw ma dikk ñu ne ma xaw bi may gërëm fii mu ne ma kat xaw ma daaw ma ko waroon a def xaw ma sënkeer xaw ma defu ko nangam te te xam nga man wax dëgg dëgg yàlla damaa bëgg lii may wax ma koy jéem a dund waaw xam nga man damaa am heure yoo xam ne timis gi moom su ma sañoon du ma ko génn kër ga na tax daa am lu may def li ñuy wax nii laa bëgg a def man ah daal di yàlla du ma nekk ab waxkat man jàngkat ab jàngkat ku mel ne Issa Gueye ñoom maam raxam bi ñoom ñoom ay ay ay jàngkat la ñoom ay mu saqaful lañ man nag man doo doo saqaf man ab suuf yu laa bëgg a doon waaw looloo tax tax ma am daal programme boo xam ne léegi dafa yees yaakaar naa dégg ngeen dégg ngeen ne ubbi naa daara joo xam ne maa ngi ko tuddee faydu akaabiri saalihiin daara yi tërbiye la ci turu yàlla engagement la engagement la de ci waaye nag bala maa kenn roy na jaar fi fi ma jaar ba ba noppi bala maa kenn roy na jaar fi fi ma jaar ba ba ba noppi waaw waxuma rek nga ci ci góob bi daara dañu fa nit ñi di leen liggéey loolu loolu moom loolu moom du dara moom waaw waaye rek day am loo ma teg ci seen loxo laa bëgg a wax kon kon sëñ Ahmadou moom waxtaan wi dëgg yàlla moom kii na ko dara képp na ko fépp nag dëgg dëgg yàlla xam naa de xam naa rek du ñàkk danaa ci ci indi bala maa dugg ci waxtaan wi ci lu mu wax loo xam ne mën naa bëgg naa ci dolli dara baatu weddu murit sëñ bi bi kenn ci moom wax ko déggu ko ci làmmiñam am na ku ku ma ko déggee baat bi dama koy ragal am na xaadir boo xam ne chef xaadir boo xam ne woo na ma téléphone ne daa bëgg a jël ci man xaadir ya tum naa murit weddul maquus ne ne ma daa dama bëgg a roy sëñ Tuubaa ci ni mboolee woon werd yi kooku ba nekkoon weddu murit la kon du ko jël de baat ci linguistique baat dafa am dafa am signification bu fort maanaam toogal sa kër rek ne ne sa kafal ak sa soxna ba ne ko fase naa la lépp lu dagganu aram baat dafa foor man ci man man léegi léegi si damaa neex moo tax baat yi dama koy jox gëddaam fo foofu rek ñaan wérd yi kat tur yi xafi fi laag kaamil ak ak mal sëñ bi waxu ko moom sëñ bi laa mi jóg gis moom fenn fu mu jaxale ne ma ko wax daa mel ne dogay daara yi ñoo ko wax loolu loolu it mat naa mat naa leeral sëñ Tuubaa waxul loolu xam nga ndax baat bi day baat bi ci léegi sig daa mën a xafiif kaamil ak mat ah sëñ bi kon moom xoromoo di da dafa am dafa am ni ci res musique bi ni nga koy déggee ni la maanaam mi mel kon it ñu leeral ko ne ko sëñ bi wax ko doo koy daal yee ko ko wax mais mel ne suñu murid gi rek ñaan murid sëñ si Tuubaa moom tuddi wuñu murid tuddi wuñu dara donc ni ko sëñ bi ci waxee donc daal yooyu ñu tuddee ay ay ay murid waaw tariixa noonu su si suñu tudd tuddiwuñ ko loolu lépp dogay daara yi ñu ko ko tuddee maanaam maanaam maanaam borom xam-xam yi ñoo ñu tuddee loola. alwirdul xaatim man man mooy sama mooy sama sàll moom lay war man di wéy sëñ Saliou moo moo ma ko jox. tur bi alwirdul xaatimu almaxuusu minallaahi bi rasulil xaatimi kooku wird la du sëylu sëylu moom ci wàllum ji bind na ko askay. waaye sëñ ma Lamin Jóob du si Tuubaa kooku sëylu ak yooyu loolu moom baati wolof la sëylu mooy lan man man digguma maanaam bi lu lu lu muy firi yàlla suñu doole moom ci mbindum loxoom man photocopie mbindum loxoom ma laa yor sëñ sëñ Sow ba siiru fa la jógee ñoom ñoo ñoo yor ndey ja alwirdul xaatimu almaxusumi lay bésolil ci xaatim suñu sëylu yow woo ma ko jox daal dina waxtu yi day bari na di di nga wax ni de waaye Tusbaar moomu ak timis moomu noonu la ko lakkee sëñ Mamadou Diagne bi nee na ma xanaa kon kon kon kon maanaam kon danaa kon madad bi foofu la ëppee loolu loolu taw wii la xasan la jiddan waaye almuhim man man doxiwu ci wu ma xam-xam is la joxe is ni bi rek man si yow nee ma nangam rek jeex na man sama yoon nekkatu ja foofu wérdul xaatim sëñ bi ngeen wax xasaa si wérdi yi man. wirdu xaatim ma maa ngi koy jëfandikoo dox naa ci ba ba jot na barab sàngam man naam foofa day jumbul foofa la yëf yi gën a ëppee man sama tajriba sama tajriba suufiya nit nit ñëw na fi man nit yu téléphoné na ma ne ma kat da dañoo am xale boo xam ne ab liir bu bo ba ba mu juddoo ba ba tey nangu wut a nàmp ma daal di wut wut ab biteel ne te te ma ko ñaal nangam rab bi bi maa ngi sa loxo bi si si si sale ma ko joxoon digal naa ko digal naa ko digal naa ko lu ci nekk ci ay leer ak secret yàlla ko su sunu boom defal ma ne adéet maxus bi gën naa ko def mbaa di jël maxus bi wérdi ko ëf ci ndox mi jox leen nes kii suñ ñu ne ma ma ngay nàmp nga xam ne man maxus bi maxus bi man kon dama ci faj man kon xasay si ko kon loo loo loo xam ne man maa ko dund man maa ko dund dem ba xam ne kat maxus bi mën naa faj waaw loolu moom tajriba la tajriba la boo xamante ne koo xamante tajriba nga ko ma man nga koo xam waaw sëñ bi li ma waxoon naan sëñ bi cheikhun xayyi la naam moo wax ne am na ñu ñu wax ne sëñ Abi Mbacke imaam nee na nee na sëñ Tuubaa li mu wax ne du dee loolu kenn kenn xamu ku dul moom wala ku ku mu ko xamal ma ne ma ne man de xam naa ko lu lu tax ma ne xam naa ko sëñ Tuubaa moo moo wax ne xalabanil ayaana man abqaanii wa kasa ixyaain bii saqanii ma ne aynu kulli cheyin huwa xaqiqatuhu lwujudiya xallaba lil mawta fasaara jahaatan bala axyaaun inda rabbihim yursaqun ci alquran dee ci yéen man ak dund la loolu koy aadi aadi sëñ mag bi bi mu ñibbisi fii fii ci Touba ab ab sërifu tukkulóor ñëw ci sama sufa di di ko jaale si ne ko ne ko ne ko dama bëgg dem ca barab ba sëñ bi boole ko kooku benn dongaam bopp sëriñ bi bi màggee bi ne asalaamaaleykum sëñ bi ni ko waaleykum salaam donc ba fale yam moom ca barab ba barab ba suñu am tëru jaxate nit ñëw na fi moom ginnaaw suñ tubaa ne ko suñ tubaa de day moo ñëw fi man ne ma wér turu ba ma doon sikkar ca gabon demal ci am tëru jaxate yu bale nga waati àll wooy wurus ak xalima wurus dem mu bindal la ko ba mu ñëwee xosam seen sori ko fii mën la jëkkee connexion la loolu sëñ bi loolu connexion dong la connexion dong la di maanaam lu yomb la lu ñuy wuti milliard milliard jëfewut ci ab commerçant xanaa du commerçant na ko wuti na leen laaj nu ñuy amee milliard mu dem mu dem dox ca mbir mi du ne nangam jagleel ak nangam lu ñu wut dong la ku wut am man man man du la gëm man amul lenn lu may jombale sama bopp ci aw yiw waaw loolu moom kon awraad yi yëpp ñi ñi ngi ci murid gi yaakaar naa sëñ Ahmadu moom xam ne daal moxti man man man jël naa saa seliya ci sëñ Abdourahman mu ne si si sëñ Xudóos maam Cerno sëñ Tuubaa jël naa xaadiriya ci ci ci sëñ Maxtaarum sëñ Maxamadu Koso mu ne mu ne mu ne mu ne maam Cerno sëñ Tuubaa wirdu nasiriya maa ngi koy gëstu nasiriya ne nee nañ maam ci waa kër sëñ sax aw balla ya ñoo ko yor yor naa nas bi bëgg bëgg ñu wéral ma ko jox ma ko kon kon kon kon awraad yëpp kon mi ngi ci biir maanaam da damay bañ nit ñi yaakaar ne kat lu baax fii rek la ne déedéet ñëwul fii doomu de lu baax mi ngi fépp yàlla inna laaha waasiun alim la waasi jooju xaju fenn xaju fenn kat foo ko dégg te te gëm ko dem wuti ko fa ma man ma man loola gëm sëriñ sëriñ sëriñ Tuubaa moo ne ko waxoon ci xutba tu wam sa yéen fu ngeen gisee gaa yooyu seen ahsaab yeeg seen awraad yi jël leen ko fii si am doon wax ci ndigalul isne bi ne ne ne xam naa li gën déedéet sart la sëriñ Tuubaa nee na turu yàlla ak werd wi ku koy jël ci lu dul isne koo xam ne dañ dañ koo digal mu jaas mu waxoon moom yow doo ci am leer xanaa la ci am mooy ab yoon kuy werd werd wi jël jënd ko fee rek wëcc ko ci jàggatere di di ko wedd wala sa sëñ bi la ko jox moom amul ndigal xanaa moom léegi dafa rus rek ñi ñi mu laa wax ne xamu ci ci te dara yow doo ci am connexion da ngay dox ba sonn si mu charo waaye rek da dañ ci am yoon yaa ngi jàng sarata ne bi yaa ngi jàng alxuraan kon est-ce que am na question méthodique sa sa Ixnaa'ul Adiim ci ci ci seex yi danaa mën de allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum ji fii ndax ayatu kursi bi daa ma tam matut Sëñ Lamin Jóob xamu ko xamu ko de moom dafay traduit xamut ba xam mat na fii wala wala matu ko fi nun nag murit gi sëñ bi war nañ nun ñii nañ nga suji ba xam danañ danañ for la wéram déet sëñ Ahmadu bi nga naan kat dangam ixtilaaf yu kii déedéet ginnaaw sëñ Basiru nee la climat la benn climat bu ci ab jum la demee nag ndax secret ba ne- nekkul foofa dëgg yàlla dëgg yàlla nun su nun nun murit yi li ñu gën a yittewoo mooy ay tabax waaye ruux murit yi moom ki kenn kenn yittewoo ko maanaam a seexu salaasa yi yooyu ana yan ana ana mbindum sëñ Tuubaa ma man xaatim bi képp laa ci gis mbindum sëñ sëñ Tuubaa fi fi muy wax ci xafif bi man sëñ Abdou Khadir dama ko jox 88 maa ko xëy si ca sëñ Mbàkke Abdou man laa jaar jóge fa dem ca moom ma dikk ànd ak sama benn rek bu ñuy wax nooru ba ñëw ba ñëwee ma nuyu ko wax ko may kan ma ne ko man de maa xuus laa soxla mu ne um toog jékki-jékki ne bërit moo jugal boom dem ca néeg ba génne kayit ya ñëw taxaw jox ma ko kon kon ba ma jox kon moom léegi moo dëppoog ba ko suñu mbokk bu soo joxoon kooku kooku kooku si ko moo moo tax wird bi boo koy jël bul ko jël ci internet bi da ngay dem nit ku ca xam dara ku xam ne baat yii araf yii képp la ma diw joxoon ne diw moo ko jox sinti wax jox tur yàlla moom loolu la tur tur yàlla wenn araf képp bu bu ca manqué mën naa wàññi secret ba wala wala far mu dindi ko ah sëñ bi na na na la am am njaayeen am njóobeen yónnee ko yónnee ko xaalis rek ca wari ba wala nangam ca code ba manqué ab benn chiffre dana ci dana ci jota sëñ bi loolu leer na loolu leer na loolu leer na maanaam yëf yi du yëf yi doo dooy caaxaan fi ñu toll nag sur kilifa yi yu bari kilifa goo dem xamu ci dara dara ci xamut xamu ci dara de déet man nag dama naan képp ku la koy koo koy laaj amal ful la àllaaxiral jëm nee ko ndax am nga ci ndigalul jëfe gi ak joxe gi man ko am fule laa man man ko am fule laa li may def nii sukkuraam lépp baax na waaye na nag bu dëgg jotee dañ koy waxante ndax yow am nga ci isnub jëfe gi ak joxe gi bu amul isnu isnub joxe gi mënu la ko jox waaw sëñ bi dama wax ci ne almasru atam bi sa sa képp koo xam ne xut bu samaan nga tampon président Macky Sall bi mooy tampon président Abdoulaye Wade mooy tampon président Senghor wala yooyu xanaa benn la xanaa de tampon tampon benn la waaye Abdoulaye Wade comme tampon léegi dana am njëriñ ah doo am njëriñ maanaam xut bu samaani yii tampon bi moom moo koy yor awraad yëpp alxuraan jig lépp dañ ko jox ma la ki ne xuraana dañ la koy jox sa sëñ Tuubaa nag sëñ bi si lu may wax ci xatmu awliya moom la am du moom kon kii la bu dee moom la kon moom kat lépp ci loxoom lay ne waaye nag ca ca lan xatimatu murajaat nee nag ñeen ñeenti téeméeri at ci la am dafa jalbu foofu nag di dégg nee naa murid yi nan nan ci baaxal de ñeenti seegal guddul te si bi ci xayatul umma guddul de waaw bu ñeenti téeméeri jeexee nag mbaa mbaa kon murid gi kon du jeex mat na ma ma mat naa baaxal loolu loolu dama commencé ci sëñ Ahmadou ci wax am na fa tomb ma fàtte mooy ba tey mooy soo mënta def naa fi léegi da ngaa xat da ngaa tëdd nga jàpp ba sell jàng amana suulu ba ca mujj saar wa su sëñ bay wax loolu su sëñ bay jokkaat ci ne kat ca ca masaalik boo ko defee da nga am yoolu ku taxaw guddi gi sëñ Amadou yaakaar naa xam ba xam waxta ko moom mooy fukki lixlaas yi ak ñaar si sëñ Tuubaa joxe woon na ko njëriñ man nag amu ci silsila dégg ko ma kenn maanaam si yow xam am na ko man amu ko silsila def ko moom daal maga ca tiire yi ñu wax ko rek suñ suñ bi nee woon na njëriñ ku ko ku ko ku am ku ko am képp nga caayam wala waa yore maxuus bi man koo caa dolli incha allah waaye waaye nag man amu ci silsila càllale gi amu ko ku ne ma jiw jiw sëñ Tuubaa amu ko léeg-léeg ma ma def ko waaye nag yàlla faratalu ko ginnaaw ginnaaw moom kenn joxuma ko ila loolu kon noonu ñoo ko war a gëstu yaakaar naa si mu taxaa ñi ko jege nañ ko wax ne ko ah yooyu yëpp de moom am na am na problème léegi nag lu ci pexe te ngaa wut kon copie yi kon ñu loxo ñu indi ko ah dëgg la de dëgg la de te si mu taxaa loolu yitte ju gën a ju gën a koy loolu man xaw ma ko ci liggéey bi de roog mu rek gën a fi kon loolu kon loolu mën nañoo tëj bunt boobu léegi sëñ Tuubaa ak awraad yi man damaa yaakaar ne jumbul ñi bëgg ma wax ci jumbul dañuy dañuy dañuy laaj kon sëñ Tuubaa man bu jógee 1301 safaani rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallama bu dee hypothèse bu wér na bu dee bu dee sëñ bi moo moo wax loolu bu dee moo ko wax sëñ Tuubaa woote na mbër yi ñëw nañ ñi ñi xaatir woon ñi tiyaan ñi sasal ñëpp daal jógee nañ ci seen tarixa ñëw jëbbalu ci yar na leen sëñ daaw Abdourahman sëñ Bakke Bousso sëñ Daaru Asan Njaay suñu sam kàngaam yu mag ya nga xam ne ñoo ñoom ñooy xiyaarul muridiya ñooy sang ya ñooñu 1305 ala ak sa takk jir ci leen wàcc wàcce na ñoom ñooñu dem nañ 1305 ba 10 ka ne woon chafaani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam de des na sëñ Basiru nee na nee na Tuubaa kat li maa li ma neexee du ne kër ay maam laa ki ak sàmm ak dara li ma neexee mooy yàlla ma ko tànnal ndigal ma ko an isnin waxtiyaarin minhu yàlla léegi nga dem ba 1310 nga nekkat léegi si doo kon xaajiree moom mi ko jëlee ci bàyyam ak nangam nangam yooyu moom xam nañu ko ma ma ma li ma yaakaar ne moo tax ñu ñu bëgg ma wax laa ci lay wax léegi Sëñ Tuubaa 1710 ñu nekkat léegi Cheikh Abdou Khadre Jilani la gis mu jox ko mu ci téere bi téere bu rawdu bi ñoom li wax gis na Cheikh Abdou Khadre Jilani mu talxiin ko ay awraad yi Cheikh Abdou Khadre Jilani gis ko rek gis ko man 1991 boobu booba maa ngi liggéey surel maçon bii ñu wax de suñu bara surel maçon moom laa doon tërbiyewu gis naa ko jëxëran mu toog nii yàqasatan toog nii te tamit sax toogaay ba sax dafa dafa dafa xoromu man maa ngi ci campagne bi yor sama course ci wér de dog bi soonu sa xabdixaa jeyne sukk sukkub murit kaalaw bu njëkk ga sikkim ba dafa amuy faas dafa amuy naanu sikkim bi ne gudd dafa tal mu def ñi ok ñu bind ci nangam ba nangam waaye sëñ bi loola bu dee Moustapha Diop la moom kon man am naa problème ah sëñ Touba moom kon 1310 moom lii dong la am ah man kooku man kooku kooku mënut a dugg ci man. lu tax mënut a dugg ci man docteur xam si la wax naa ko man ma yow xanaa ko dangaa ba tëkkale si sëñ Touba sa bopp ma ne ko déedéet son problématique mooy bu dee sëñ Touba foofu la tolloon te man xam naa ne man duma dara man loolu benn la. ñaareel ba mooy mag ñamu tërbi yoon ba wàccee leen ñoom léegi oto ba fan leen wàcce ba ba dëkk ah mag ñam tërbi yoon ba wàccee leen ba dëkk leen wàcce la wax ba dëkk am na ñu naan waaw ginnaaw ba maaxus bi jox leen ko ma ne déet waaw ma ne am sañ mbokk yi nga ne ko man de ma maa nga jëm Touba mooy bismillah ngay dox ba ba gis ab dëkk man man man xaw ma Touba nga ne ko dëkk bii de njëriñ ngi fi Touba ngi nii moo wàcc man nee fa ay at nga dikkaat ne ma sëñ bi kat nekkati man kat xaw ma dëkk ba kat gis naa koo xam ne xam dëkk ba kaay ñu ma yóbbu leen man man suñ kokki du du ma nangu ko man déedéet xam naa xaw ma xam naa xaw ma lu man ngay nangu naa xaw ma kaanu ànd waaye xam naa ba doppi ne xaw ma ne xam naa déedéet kooku man munti nekk moom xam naa ne mën naa mën naa monsieur bi ñoom mën nañ ko ñoom ñoom mën naa am ñoom bu ñu leen ne kat fii ñe fii fii Touba la bu amee fukki at ñu kat leen ah mu kat nekk da Touba kaanu ndox ba ci kanam simila man man loolu man xaw ma ko kon man sama sama problématique lay wax sëñ Tuubaa moom 1310 moom suufiyanke yi ma desatu bax daal te su ma desatu bax daal rijal alxuseyri ñoom ku képp ko gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam àgg nga sahidani tuluu shamsin fii nasar ila samaai wa nujumi wal xamar salaa salaam bu xasee fenkat ci yow dutu am ab sëriñ yow sëñ Tuubaa moom bu dee chafahani je wér na ne moo ko wax kon léegi tërbi na am mbooloo ne àggale naa leen ci yàlla kon 1310 moom wërta mën a nekkaat koy demaat ci loxo yi Cheikh Abdou Khadre Jilani waaye sëñ bi yéen si Mbàkke Buso Masaalik Masaalik sëñ bi yow Mbàkke Bawal la ko sëñ bi di def yéen ko wan yéen yow ñëpp nangu ko ni bu Buso bi ne ngeen mi ngi ko defee Mbàkke Bawal da nga ko sëñ sëñ Mbàkke Buso waaw Masaalik roog roog Masaalik mën naa dem ba ci yàgg naan maa ngi mu baa yaxa Cheikh Abdou Khadre Jilani Masaalik Masaalik ruugi ruugi laa ku déglu ruugi da nga kooku mën naa ne kat kuy demaat di dongoo ci keneen kooku man mënut a nekk ci man léegi nag minal baa xadim am na ay problématique minal baa xadim demal ci minal baa xadim rek yow yow day dem ci la mu annoncé woon ci ne awraad yi ah saab yi nangam dana fa ñëw xistatu mun nga wax di gannaaw ba ñu dikku ca waaw léegi kon yow misaal ko mun nga wax di minal baa xadim cosaan sëñ Saaxa Mbàkke si si si si Basiru nee na ma cosaan la dañ koo jëmb naan ko mbirum la ko si si sëñ Basiru am na nag ay sërëm yoo xam ne déedéet jëmb ko mais mais waaye waxi sëñ Saaxa ma gën a doy si sëñ Saaxa moom nee na ma sëñ Basiru moom la confié woon ngir mu topp ko ok xanaa kon waxee wér na xanaa sëñ Saaxa it andi na keer bi ñuy mool mbirum bàqadim bu mujj bi andi na fa ñetti kayit jox ma ko man mii ne ma photocopie ko ma photocopie ko ñaari yoon benn bi ma ma nga sama kër jox ko benn ba ne mu ne ma lii moo des ci minul baaxadim minum loo xam sëñ Basiru kon kay sëñ bi nekk wax di yàlla kon kon nag di yàlla nag nag nañ waxante dëgg léegi nag kon kay téere bi bi ko kon moom léegi escalier yi am na ko am na problématique na nañ ko gëstuwaat maanaam jànkat yi fi ñu toll man sama message ni may waxee li may amal jariñ jànkat yi mooy xam-xam la ñuy wax xam-xam xam-xam bi dafa laal suñu pas-pas dun murit yi sëñ Muntaxa mooy xalifa si yàlla murit doomi sëñ Basiiru loolu askay askay bokkut ak xam-xam bokkut de sëñ saaxal fekk naa ko biróom keer di ko wax ne ko kalimatu naasix bi xool ko mu xool ma ne ma ne ko kalimatu naasix bii soo ko mu laalee ci ci ci sa toppam bii bàyyi boo xool danaan ay na aslo waa ji dafa wax ne wa laxasoo la laxasoo ma ne ko laxasoo lu lu lu muy firi su sëñ Cheikh si mu tax nee na ma ndax laxasoo mënut a am firi ma ne ko ma ne ko arab la wala jo jo jo dama gisul ma ba xam luy firi laxasoo moom mooy da koo tarxiis moom da koo résumé kon ay na ay na aslo kon ay na ay na ay na aslo kon moom léegi sëñ sëñ Tuubaa wird yëpp la yoroon na ko jëkk assassine ba am isne ne ko Cheikh Ahmadou dem sukkoon waxee ne kat da ko doon yor nag yor barkeelu assassine ba jëy sasin ci ci ci géej gi Seydina Jibril moom moom moo nettali ci mbindam moo ñëw nocc ci li ne woon ci moom salaay salaama jox ko ndigal jox ko awraad yi ci ndigalul masaayix yi ma am na am na dégg naa ñu ne Issa Gueye doon wax ci wënd yi ba tiyaan yi mer ci ndax lection bi bi bi mu xaq a xiin damaa yegg ne xaw ma ne aussi man di di di déglu ma wax ja yónnee nañu ma ko waaye booba damay bañ mu jox ma tàngoor moo tax di déglu loolu ma ko. léegi waaye lection bi mu xaq xiin ji ci dimension Sëñ Tuubaa la xam nga Sëñ Tuubaa moom yow génnewul ci génnewul ci Mamour Anta Sali waajuram ñi ko jox ñëpp nee na lection bi bi mu xaq xiin fi tollu nag mi nan balaa ko na neex mu tudd mu tudd nag membre antiseli su su su su ko tuddoon jàngkat yi kon ñoom ñoom ñoom kon daal koy mën a wax fu mu jeex ah bàyyam kat neen sax bu kutat yi mu wax xëy yi mu jeex ko ko kon kenn du mer waaye buñ ne kat ah ñu ñu ngi ko jël ñëpp lection bi ma xëy yaakaar na ñoom kat jàmbur ji la fekk na bàyyam ci la bokk sëñ mosio bi ci la bokk loolu kon moom ci dimension la kuy jëlee is na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam léegi doos bi nga war a naan mu yëngal la duutu bari loolu kuy jëfandikoo tur yàlla jël ko ci ay silsila yu bokkut di ko jëfandikoo da nga xam yow lu mu doon da nga xam doos sangam bii ak doos sangam bee bu ci gën a diis da nga xam ba xam kii ma jox lii xam na ci dara am déet da nga ko xam da nga dem ba xam ne xel kii la jox xamu ci dara maanaam nga ko jox mu ci xamu dara wala wala am na lu mu ci ci wàññi misaal rek. Cyril Masson bi bi ma koy bi ma koy tërbiyu ci nit mu jox ma tërbiyu gu métti Italie nañu ànd wër Italie luñ la luñ la jox luñ teg sa loxo sama xale nga ci luñ teg sama loxo bu ci saxal nekk lu métti ma ne ko est-ce que man ak moom ndekete waa ji kat ab dongab daara la xam damaa ko mën nag damaa ko mën nag suñu maam war a am di lay moo ko am déet ma ci la ma xëy ci la ma xëy damaa ko dal ndekete waa ji ndekete daa bëgg a dagg secret bi jox ma ko ma jël ma jël ma jël way ndare yi di ko bind guddi jot ma fanaane ko ñu ñu daal may wan dara ne ma lii day diw ko moom ma koy ne ko sëñ bi de wan nañ ma bi bi bi nangam mu ne waaw maa ko man la kay daal ma koy jox ma ne ay way xoolal ma ne contrat bi ni ñu ko signé woon waa ji bëgg ma nax waaye nag suñu boom am dëggal gi ma dëggal ma tax suñu suñu boom du ma nax moom suñu boom daal daal may wan secret ba loolu kon li ma fi li ma fiy confirmé rek mooy ne sëñ Touba layso bi bii mu xaq xiin yi ci moom ci dimension la moom waaye ñooñu ay ay ay kàngam lañ kàngam lañ ñoom joo xam ne dama jël nañ ndax ku mel ne askan ma ku ne xam ne ne mu xaqiq la ci moom waaye nag bu dee ci sëñ Touba moom layso bi mu xaqiq lu ko waral de sëñ Touba moom yàqutul is na anatulay sa sallallahu alayhi wa sallam kon daal kon kon daal man sëñ Amadou moom moom dafa ndar képp wax ji kon daal awraat yëpp sëñ Touba doon na ko jëfandikoo ba assasin assassin nag moom is na la la la am ci yonent bi alayhi salaam saafani rabbi saabaka bi bi bi himma yor na awraad yi di di ko barkeeloo suñu basiru nee na ku dikk mu jox la ca awraad yooyu mu am is na wala mu mu saxra jaariya jox na la ko. sëñ sëñ jéeri wadaan sugu foofu lay tëjee tasawuf daa am nuance sëñ jéeri wadaan sugu sugu dafa ñëw njaareem di jublu si sëñ bi ne ko jéeri wadaan ci loo ne woon. ne ko xanaa lu ma gën di ci aw yiw ne ca digal ña ma war ñu ne ca sëñ bi ni ko jéeri dangaa mel ne ku nekkoon ci tund wu xiif nga yor saqum xetax woo leen leen kaay mën naa leen dundal waaye jéeri defe naa la ko lépp aw yiw kooku mooy ki yor yëf yi sëñ ji sëñ jéeri kàngam la ndax sëñ jéeri sëñ Tuubaa ci géej gi yëg na ne sëñ Tuubaa àgg na ci maqamu tasrif soppatiku ci ngóor gi nu nu mu ko soobee mu am doom tuddi ko Mouhamadou Tasrif kooku mbër la mbër la de kooku kooku Sëñ Tuubaa bu ne ko yoroo dara ah kay yoroon dara de Sëñ Tuubaa daa xoolee boppam bu xoolee Sëñ Tuubaa bu xoolee boppam sëñ jéeri ba ba mu dikkee ci Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa ne ko jàmm nga am mu ne ko mu ne Sëñ Tuubaa ne ko mbaa jàmm nga am mu ne ko jàmm nga am sëñ bi ne ko waxaat ko ba ñetti yoon sëñ bi ne ko man jéeri dara métti ma jéeri ba jàmm nga am mu ne ko jàmm rek xam nga sëñ jéeri tam la xam su sëñ jéeri sëñ bi daal di yónnee Cheikh Moustapha ak sëñ Fallu ne nañu leen wooyu ñëw bañ jubee mu ne ah sëñ Bamba yu bari kon kon sëñ jéeri kon bëri yi neex na ko tax naa waaye nag daa gis mbër mu ko raw ya yaakaar naa sondeel ku ci ku dëkk ci ca kaw ga leer ga neex na lool waaye bu bu jant fekkee yaakaar naa sondeel duutu duutu am njëriñ sëñ Tuubaa fenk rek waaye kàngam yi kàngam lañ la soo bi bi mu xiin nga du firi ne mbër yooyu du ñuy mbër mbër lañ koy si sëñ Tuubaa da leen a raw rek salaamaaleykum nga taxaw